jërëjëf sëñ Xaadim amati mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax jàkkaarloo ak yéen fii ci 4appuis TV mbokk ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di dalal ay kilifa waaye te ñu dalal kilifa goo xamante ne nu ñu koy waxee sénégalais yi dootuñu leen ko présenté ndax it taxawaay bu am solo bi nga xamante ne moom la taxawee ci réew mi ndimbal ak faj li nga xamante ni moo di aajo doomu aadama di Serigne Moustapha Dieye Badar sénégalais na xam ko bu baax a baax a baax ci wàllum ñaan ci wàllum li nga xamante ne moo di lasraar mu ci am taxawaay bu am solo tey nag ma am mbégte bu baax a baax a baax ko fas yéene waxtaan ak moom ci jafe yi nga xamante ni jamono ji askan wi ñu ngi koy dund di wut li nga xamante ni moo di solution waaye suñu borom dénk ko li nga xamante ni aussi moo di solution bi ngir mu dimbali askanu Sénégal bu baax a baax a baax Serigne Moustapha Dieye Badar am nañ mbégte bu baax a baax a baax cheikh bi dalal la di la bàyyi rek nga doog mbokk internet yi waaw salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk jël yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora bi di nuyu xalifatul aam ni tarixa murid yi Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké Mouhamed mu yàgg fi lool waajal xibaadaka rijaala badri maa hiya fi daarin warfan xadri bismillah macha allah bi saa su ne rek mbégte lay doon ñu dalal la fi seq ak yow li nga xamante ni moo di waxtaan waaye laataa ma gën a wéyal euh, sunu ay kàddu ci yi nga xamante ne nag jamono ji mooy jafe yi nga xamante ne yaa koy saafaral ci askan wi cheikh bi dama bëgg ñëw ak yow tuuti rek ci mbirum actualité ndax jamono ji euh, gis nañ affiche bu mag bi nga xamante ne. Mhm. Euh, jam waa jàmbaar production génnee nañ ko ngir indi ko làmb. Siteu ak Lac de muy làmb joo xamante ne bi mu taxawee yàggul waaye bëri na coow lool ku ci nekk ngi wax ci wàllu mystique bu ñaari mbër yi. Mm-hmm. tey ban gis nga am ci combat boobu nga xamante ne day taxawul. waaw gis-gis bi ñu am ci combat Lac de Guiers ak Siteu. Mm-hmm. mu ñu gis ne Lac de mbër mu bëri gàllaaj la moo xam ne. Mm-hmm. Siteu balaa mën a àgg ci koom faaw mu doon mbër mu bëri gàllaaj moom itam Siteu. Lac de Guiers dafa doon mbër mu bëri gàllaaj moom dañu koo samp. dañu koo samp. macha allah mbër mu ñu samp ndax mystique dina mën a yomb ci Siteu mu jàpp ko Lac ndax loolu dina yomb. Siteu pour mu jàpp Lac de Guiers ci mystique. Hmm. mën naa yomb waaw ci kaw ñi xam ci yoon dañu koy jaar rek. Hmm. waaye fi ñu doon nii Lac de Guiers mbër mu bëri gaal la moom ñu samp lool. ñu hmm. samp la mbër mu ñu samp la. ci beneen tolluwaayu dëkk bi mënu ñàkk aussi cheikh bi nga partagé ak sénégalais ndax jamono jii sénégalais yu bëri dañoo toog ci njàqare wala tiis saa su ne rek mu ngi xalaat réew mi mën naa tàkk ci politiciens yi. Hmm. Ah, tey fii wàllum politique toll ci Sénégal ndaw yi di si ñàkk seen bakkan mu doy waar loolu sa gis-gis ci taxawaayu tolluwaay boobu ci réew. waaw ci tolluwaayu réew moom réew mi jamono ji tàng na lool. Hmm. àgg ci tàng lool sax waaye képp koo xam ne kilifa nga waroon waajur ci yilif ndaw lu toll ci douze ans jëm trente ans quarante ans boobu nga génn sarata xam ne dëkk bi tàng na lool loo mën a def ci saraxu trois kilos yu dugub ak liibar mhm. trois kilos yu mboq ak liibar mhm. ñaan ñaan li nga bëgg génn ko sarax baax na ci tolluwaayu réew mi fi mu toll nii waaye réew moom tàng na lool. tàng na lool mhm. baax na ci tolluwaayu réew mi muy kàddu yu am solo yoo xamante ne ndimbal la rek mu partagé ak askan bi ku ne rek mën cee mucc ci xew-xew yi nga xamante ne moo am ci réew mi waaye cheikh bi wàllum seet nag foog ma dooree ci ak yow waxtaan parce que mbir la moo xamante ne jamono ji askan bi dañoo mànkoo dénk ki nga xamante ne moo di Serigne Moustapha Dieye Badar wàllum seet ak Serigne Moustapha Dieye dafa doon loo xam ne nit ki lépp lu muy dugg a bi mhm. dugg ci diggante ak wala diggante ak sa borom kër wala sa diggante wala nga yor oto wala nga yor kër lépp loo xam nga da nga ko war a seet mm-hmm. seet na dafa doon li nga xam ne mooy bànqaasu ñaan mm-hmm. seet na daa tënkiw ci moom muy tabiha mm-hmm. muy naar yu di xawaa yu du maay yu du traab yu loolu boo ko xamee xam li xel mënu joom moom loo mën a da nga ko a seetal ba xam mbir mi fu mu fu mu taxawee seet na daa lépp looy dugg ci biir nit ki rek da ko war a seetal boo xamee nag fi mu jaar fi nga war a jaar ba xam tabixam man xel mu nu jom lool pour nga ñaanal nit ki mu mu yomb mu jàpp day yomb lool ndax loolu mooy buntu ñaan muy seet mooy buntum ñaan ak seet waaye seet ba tey dafa xaw a am différence ak lasraar ak listixaar mhm. euh, listixaar euh, tey tolluwaayam tey naka lañ ci mën a gisalee doomu aadama waaw listixaar mooy doon loo xam ne lu nëbboo nëbb la nga bëgg a xam fi mu nekk wala nga bëgg xam ban barab la nekk mm-hmm. ci misaal mooy nga fekk ab liggéey boo xam ne daa nëbb lool nga bëgg xam liggéey fu mu nekkee li saxaar nag lu ñuy fanaanoo na waaye itam lu am saatu la mm-hmm. ndax li saxaar yow mi koy def da ngaa war a wéet te ngay nekk barab bu wéet barab laab la war a doon mm-hmm. te fi ngay tëdd daa war a laab mu doon fi nga nekk doon fu wéet tam waaye li saxaar moo doon loo xam ne lu nëbb tam te mu nëbb lool li saxaar moo ko mën a génne. Mhm. loolu mooy li li saxaar. Mhm. loolu mooy li saxaar ci li nga xamante ne nëbbu la kon nit ku ne rek lu mu war a dugg wala lu mu war cee départ. war na ko wala mu li saxaar ko bañ mhm. gisal ko ay bureau. waaw macha allah mi kàddu yu am solo waaye ginnaaw euh, li nga xamante ne nag cheikh bi mooy di wàllum li saxaar euh, am na solo loolu fi jamono toll ci wàllum kaaraange suñu borom may nañu ci loo xamante ni. Euh, ku ci jëf jëflanteeg yow ay mbiram dina defaru bu baax a baax a baax Serigne Moustapha ak kaaraange ci li nga xamante ne mu koy dimbalee askan wi waaw kaaraange moo doon loo xam ne saa su ne damay wax nit ki lu mu mën di xëccoo ba ma koy wut na wut kaaraange mm-hmm. kaaraange bu ko ba am loo laal rek mën naa yomb muy ubbeeku muy lu ma doon day yomb mm-hmm. kaaraange nag li ñu ciy liggéey dañ ciy liggéey ay ndomba dañ ciy liggéey cangat waaye dafa am kaaraange yoo xam day tëj nit ki mm-hmm. ndax bu fekkee kaaraange boo xam ne ab président moo ko war a jëfandikoo wala dara yow nga jëfandikoo da lay tëj kaaraange day passé wu ci at ci nit ki bu tollee ci douze ans jëm trente ans quarante ans am na kaaraange bu mu war a jël am na itam bu mu war a jël kaaraange nag mooy doon bànqaasu lépp ci nit ki. Mhm. ndax boo ko amee rek loolu laal rek mën naa mën naa yomb. moom mhm. moom kaaraange. Mhm. moom kaaraange waaye tamit ci li nga xamante ne tey jamono ji jëf yu bon yi ak yi nga xamante ni ngeen koy suul ah, ci wàllum kaaraange ngir doomu aadama gën a boppam tey bu jàkkaarloog Serigne Moustapha Dieye lan la mën a dalalee xelam ci ñi nga xamante ne bëgg nañ ko lool te xamuñu fa lañ ko war a mën a wutee waaw kaaraange dañ ciy liggéey yoo xam ne càngar yoo xam ne nit ki bu ko jëfandikoo ci set suuf la koy jëfandikoo lépp loo xam ne nit ki dugg na pour def ko ko. dañ mm. këpp waat ci kawam. Mm-hmm. dañ liggéey sengoor yoo xam tam mboolem sëriñ sépp bu ñu taxoon di di liggéey. Mhm. mënuñ ci yow dara. Mhm. waaw mënuñ ci yow dara. Mhm. lu dul xanaa lu jógee ci suñ borom rek. waaye di pexey nit wala pexey jinne wala rab wala lu maa doon. mënuñ ci yow dara xanaa lu jógee suñ borom kese. moo mën ci yow dara. moo mën ci yow dara macha allah cheikh bi muy kàddu yu am solo mbokk yi ci fàttali ba tey ñu ngi dalal sëriñ Moustapha Dieye Badar yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg a jokkoo ak moom numéro téléphone baa ngi noonu ci suuf écran bi waaye cheikh bi ah, da nga ñëwaat indi bu baax baax baax ci li nga xamante ne moo di néegu sëy yi ndax it ji waaye lenn rek li ko waral mooy di néew kattan ki nga néegu sëy yi nga ñëw nag indi solution bu baax a baax a baax ci néegu sëy yi euh, Serigne Moustapha ak néew kattan. waaw néew kattan dafa doon ne yàq na kër yu bëree bëri ci jamono ji ñu toll. ndawat mhm. na ci ndaw ñi bu njëkk sax dañ kaa mag ñi waaye léegi ndaw ñi la ëppee. Mhm. néew kattan dañ ciy jox garab yoo xam ne nit ki fu mu ko jëfandikoo incha allahu rabbi ci néegu sëyam dana neex lool te dana defar màndi ba mhm. njaboot dana ci mën a antu ndax léegi màndi yu mu feebar day wala ay ñàkk njaboot yi demee noonu mm. néew kàttan tam daanaka bu amee ci biir kër mm. pour sëy bi antu na mu war a amee day day jëfeloo ndax day yëngalub sëy mm. loolu dañ koy saafara ci lu gaaw a gaaw a a gaaw a ci wàllu néew kàttan cheikh bi euh, yan naka naka la ko doomu aadama mën a amee wala lan moo ko mën a jox doomu aadama parce que ñu bëri ñu ngi jàpp rab la ñi jàpp nit kuy fooy boppam la yan moo ko mën a jox doomu aadama bu baax a baax a baax waaw xeet yi da koy waral nag ci nit ki mu koy dal mm-hmm. rab da koy waral. Mhm. bokk na ci rab da koy waral ndoxam sidit da koy waral. Mhm. di seetaan film yi alhamdulilah film porno yi itam. Mhm. da koy waral ak masturbation bu bëri. day waral néew kàttan. yooyu faral indi li nga xamante ni moo di néew kattan waaye aussi cheikh bi du fàtt du ñàkk ñu fàttaliku bu baax a baax a baax suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi waaye cant ak ngërëm bu baax a baax a baax gu ñu yónnee ci yow ci ndimbal bi nga xamante ne yaa ngi koy taxawoon doomu sénégalais yi nekk ci diaspora bi rawatina ñi nga xamante ni ñoo am jafe-jafe këyit ndax euh, kun la la si yàlla may wàllum këyit cheikh mm-hmm. waaw këyit dafa doon loo xam ne ñu bëri dañ daf leen a mm-hmm. ñun këyit moom yaakaar naa ne lañ mën nañ cee garanteel doomu aadama këyit bu la neex mën ngaa téye sa alal bañ liggéey la pare nga doog a fay mm-hmm. bu la neexee itam am na ndoom yi jox yoo xam ne pour wàllum nasara ki nekk ci nasaraan si yooyu mm-hmm. bu la neex mën na laa samp ba ba nga àgg fa nga jëm ba ba jàppandi mm-hmm. nga doog a joxe li ngay joxe waaw këyit moom lu yomb la am na ñu la jox xam sa tànk ndeyjoor bi nga koy takk. Mhm. dem wuti këyit yi. dem wuti këyit dem am loolu picc sangat boo xam picc nga koy booleel. dem ñi ngay def dem wuti ko incha allah foo dem ñu may la këyit. foo dem ñu may la këyit ba ci ki nga xamante ne sax mi ngi Sénégal gi am jafe-jafe këyit moom it mën nañu ko liggéeyal. waaw incha allah dañuy jël fii ndaw yóbbu ko wutal ko ay këyit yóbbu ko ba Europe. Mhm. Ah, samp ko fa mu nekk ci ab liggéeyam ba yàlla indi ko xéewal. Mhm. ñu jëf doo ko jëflante ak ñu yëpp dañ koy def ci wàllum ci wàllum këyit waaye du tamit ñu dugg ak yow ci li nga xamante ne aussi moo di wàllum ubbeeku ndax jamono ji hmm. ndaw yu tëju bëri na nit ñi nga xamante ne bëgg nañoo ubbeeku bëri na waaye hmm. xamuñu fan lañ ko mën a jëflantee ak kan lañ moo leen ko mën a defaral Serigne Moustapha ci ubbeeku tuuti rek nga leeral ci waaw ubbeeku dafa doon loo xam ne nit ki hmm. bu ko xasee ba am lu mu laal rek day yomb lu mu laal day yomb parce que nit ki dana lijjanti sensation di lijjanti dara mu tëj loolu loolu ak tëju da koy waral tëju nag xeet daanaka xeet yi bëri da koy a muy rab ak wàllum sobi su bëri yi bëri day waral nit ki tëju mm-hmm. nit ki nag moom ginnaaw bu amee kaarang pare bu amee ubbeeku nag lu mu laar rek mën naa yomb mm-hmm. muy nga nekk ci entreprise bi lépp looy liggéenti ci mm-hmm. wàllum këyit ak wàllum dépôt sax nii day jàng ba am diplôme pour mu liggéey sax da koy jafe waaye ubbeeku dañ ciy joxe benn kii boo xam ne ku ko jëfandikoo rek di nga xam ne am nga ubbeeku am doole lool lool lool lool waaw muy gis nii macha allah muy xaarimu Souleymane waaye ni tam façon ni koy liggéeyee mm-hmm. doo gis ni waaw mm-hmm. moom ci wàllum ubbeeku la mm-hmm. boo moom boo ko jëfandikoo insha allah rabbi moom sa adduna noppi ngaa tëju moom xaatimu Souleymane waaw waaw moo nekk nii mais yàlla yombut waaye képp ku ko am ak ndomba yi insha allah rabbi moom nopp noppi ngaa tëju ci adduna waaw mooy lii. Mm-hmm. mooy ubbeeku gi nga xamante ni jamono ji euh, ndax bunt bu waaye mën a ubbi rek. lii boo ko suñu borom bu la ko dénkee jàppandi seen mbir baax na. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah waaye ñeneen ñi nga xamante ne cheikh bi mën nañ ñaan wala seet du gis seen mbir. lenn rek mooy gis seen mbir mooy xalwatu. wàllum xalwatu nag mu doon loo xamante ni koo ci duggal ba génn mën nañ ni ay mbiram macha allah. cheikh bi ak xalwatu. waaw xalwat daa doon li nga xam ne moo gën a gaaw ci bépp aajo bu doomu aadama gi am. xalwatu dafa doon loo xam ne itam yombul ñu dugal ko nit ki mm-hmm. ndax ak i sartoom mm-hmm. ndax yow mi tëju ci biir xalwa daa am loo war a dundee mm-hmm. ci boobu daa am loo war te itam bala ngaa dugg daa am loo war a saraxe boo génn itam daa am loo war a saraxe waaye xawla moom mu gën a gaaw ci aajum moom kuñ ko tëjul ba génnum bala ñoo génn incha allahu rabbi sa aaj dana faju képp ko xam ne aaju goo am lu mu diis diis diis xalwa moo ci gën a gaaw mhm. waaw xalwatu moo ci gën a gaaw ndax loo xam da ngay wér la mhm. nekk ak sa borom mhm. di jàng alxuraan ak wér di say wér moom du mat sax trois jours wala dara sa say aajo faju euh, kon ñi naan xalwatu bu ñu la ko duggalee bu ñu génnee rek sa aajo dafa war a faju parce que dañuy gis solution bi foofu loolu d'accord nga ci d'accord naa ci ndax xalwatu doon loo xam ne boo ko duggee boo génnee sa aju daa war a faju mhm. waaw ci kaw nit ki boo seetlee mhm. jubal doxal na nga war a doxee mhm. xalo boo ju duggee sa aju daa war a faju waaye ñu jàpp ni aussi tamit dafa yomb new doonut lu yomb ci ki koy def déedéet doonul lu yomb xalo moom yombut waaw macha allah muy kàddu yu am solo ba tey mbokk yi waaye cheikh bi du ñàkk aussi nag ñu xaw a taxaw tuuti ci li nga xamante ne ñu bëri dañu ciy sikki sàkk ñi naan baax na ñi naan baaxul cheikh bi wàllum noob jëkkër ju bëgg a noot borom këram wala soxna su bëgg a noot borom këram ci ñàkk a juboo ci toog ci ñàkk a toog wàllum nopp ci waay dencante yi yan kàddu nga ci wax. waaw nopp ne daa bokk ci bànqaasu sëy. Mm-hmm. ndax sëy yu bëri dañu am jafe-jafe nga bëgg nit ki ngeen bëggante. Mm-hmm. ay nit bëgg a dox ci seen diggante yi demee noonu. Mm-hmm. ginnaaw bi nga wutee kaaraangeeb sëy ba ñàkk sëy ba pare. nga nopp ci sa diggante borom kër wala nga nopp sa diggante ak soxna. nob itam dañ ciy liggéey ci lu gaaw a gaaw ci jooni jooni itam dañ ci liggéey 24 heures dañ ciy liggéey 7 jours hmm. gën ngaa yeex 7 jours a ci nob yi gën ngaa yeex 7 jours ci nob 7 la nga bëgg nga am ko nga am ko insha allahu rabbi hmm, macha allah waaye aussi tamit ñemema fàtte suñu mbokk yi nga xamante ne aussi ñoo nekk euh, jaaykat yi commerçant yi bàyyi na place gu doy waar ki nga xamante ni si Serigne Moustapha rek nga ko mën a amee ngir say mbir mën a naat ci wàllum commerce hmm. cheikh ak bayra boobu noonu lan nga ciy expliquer askan bi waaw bayra xam ne dañ koy liggéey liggéeyatu ko samp ci ay nit muy bayra place nga nekk ci place sa place tëxiwul noonu insha allahu rabbi bu ñu ci ba jëflante ji mhm. place bi dina kawe ba kawe sa njort lool ci mhm. ci ci wàllum bayre mhm. duñ la duñ defal place bi bayre kese waaye dañuy defal yow nit ki nga am nga amal bayre amaale kaaraange. Mhm. ndax nit boo ko joxee bayre place ba pare mu bëri mbooloo te amul kaaraange itam daanaka du am njariñ. Mhm. loolu da samp da ngay samp bi. Mhm. da koy samp. kon bayre ak kaaraange ñoo ànd. ñoo ànd ñoom ñaar a ànd bayre ak kaaraange. ñoo war a ànd. ñoo war a ànd. macha allah sëñ Xaadim mi kaddu yu am solo yi nga xamante ne mbokk ñu ngi ko seqoon ak